rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk julli ji bokki taalibe murid yi yëpp rawatina ñi nekk Amérique ak Canada ndigal li ak kaddu yi ci ñoom la jëm kon ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi jëmi Sëriñ Tuubaa tey ci kaw suuf xafidahu llahu taala wa raha wa ayyadahu ñu ngi yëkkati kàddu yu bàyyi ko ci moom muy kàddu yu nuyoo kàddu yu cant ak ngërëm ak kàddu yu ndigal yu bàyyi ko ci sëriñ bi jëme ko ci bokk taalib yi nga xam ne ñoo nekk Amérique ak kanada bayut kenn nag ndigal li nag nañ xam ne ci ñoom la jëm ndax liggéey liggéey bii nga xam ne da koy liggéey Serigne Touba te moom ku ko xam ci yitteem dama naan képp ku ne ci ginnaawam waxtu wu ne boo góorgóorlu rek yaraanga daan la dem ndax ko xam fi mu toll waaye waxtu wu ne mi ngi mi ngi settante di xalaat di teewlu Serigne Touba di teew liggéey Serigne Touba amul jën yitte day wax ne amul nopp lu amul wàcc kon nag bu yàlla defee ngeen am tawfeex sëriñ bi tànn ndigal lu ko ñor jëme ko ci yéen kon yéen yéen a war a gën a sant ndigal li nag mooy li nga xam ne bi yàlla defee naw bi am ci dëkk bi ci réew mi ak ci dëkk bi Tuubaa gis ngeen ni mel ci biir lool nag bi sëriñ bi di yëkkati addiyee di ko def ci liggéey bii comme na ma ko leer la woon ci njëlbeen ndax xam ngeen njëkk na cee joxe deux cent millions ginnaaw bi bokk taal bi murit yépp ñëw dajaloo di andi ñii di indi ci kuréel gi nga xam ne taxawaloon na ko dénk ko waa Hizbu Tarxiya ak waa daayira tubaa tubaa ci kanam ak waa commune tubaa Mosquée mu boole leen doon leen liggéeyloo ci mbënd mi ci biir loolu itam sëriñ bi waxoon ne bu demee ba liggéey bi àgg xam na ne am na ñoo xam ne seeni kër bu kër yoo xam ne bu fa bu nawet bi dellusiwaatee itam nu mën demee dana génn ci kër yi xaj mu martale mu ñëpp dana jafe waaye moom ci at mu jëkk yi sas sasoo na ci ñaar téeméeri kër yoo xam ne eh, ci yoon Touba Belel wi fa ko bëgg a def dimbaloo ko taalibe Serigne Touba yi nga xam ne loru nañ ci. ci biir loolu yi nag yàlla def ba mu ci njëkkee joxe deux cent soixante millions taalibe Serigne Touba yi indi fii lu bari indi ca moom lu bari ba nga xam ne Marissa wax ne li jëm ci lañu recensé woon mooy fukk fukki junni famille ak benn li ko war def la ca desoon nekk trois cent soixante millions mooy li sëriñ bi mujj joxe ba kii mu wax nag ne li fi taalib yi indiwaat ndax taalib yi moo xam ngeen ne duñ duñ wàcc liñ fi indiwaat nag loolu la jël bëgg koo tàmbalee kër yére ci biir lool nag yéen mu tànn leen wax leen ne da caa tànn juróom benn fukki kër ak juróom benn jox leen ko ngir ngeen ànd ak moom ci liggéey bi mu ne na kon addi yi yéen doon dajale ngir di ko indi ci moom ngeen necc loolu ba liggéey bi àgg ngeen door ko indiwaat ci moom kon loolu mooy ndigal li nga xam ne sëriñ bi sant na leen ko te xam ne rek na ngeen ci góorgóorlu bu baax te xam ne buñ ci defe yitte ak pëstéef lu ci waay def rek boppam la koy defal ndax liggéey sëñ Tuubaa moom amut amut amut amut noppalu amut wàcc te waxoon na ne xam ngeen waxtu ma leen santee lépp xam ngeen nu may xameen def ngeen ko wala def ko ñu ne ko dee Mbàkke mu ne waxtu moo sante nit lépp day am lu jug ànd ak moom bu jëfee ndigal la nag mu dëkk ak moom bu jëfewul ndigal léegi mu dellu si ci man di ma xamal ne dem naa waaye amu fu ma ne kon nag yéen waa ñaari réew yooyu di Amérique Canada sëriñ bi nee na nañ xam ne kenn génnu ci ñaan daal addiyee ju ñu war a indeti ci moom nañ ko def ci foofu ba mu àgg ñu door ñu door kon nag sëriñ Mamour yow yow mu fi teew ak mboolem bokk bi yi fi teew te jot fene nee na keroog bi mu koy siyaar leen ko waroon wax sax waaye ñor na ko lool ndax woo na ma ci ay yoon yoon yoon yoo xam ne ittee ma kon yéen loolu nee na mooy seen taxawaay ci liggéey bi la ca des nag ndigale loo xam ne joxe na ko ndax kuréel gi ñu ngi ci mooy li wër jumaa ji ndax nee la bëgg ñu defaraat ko ba nga xam ne ndox dootu fi accepté loolu ak beneen liggéey boo xam ne da koy def ci biir jumaa ji loolu buñ demee ba àgg ci weeru janvier dana ko leeral mhm. te santeeg techniciens yi ñu ngi ci liggéey bu ba tey mhm. ñaari fan ñett yi sëriñ bi ñu ngi koy soññee ndax wax na ci wax bu baatine mhm. joo xam ne ku ko dégg rek nga xam ne Sëriñ Tuubaa ko sant kon nag yéen moom lay seen wàll ci liggéey bi mooy ngeen jëme ko fii ñaan daal bu fa addee jugee ci ñëw ci moom te liggéey bi agut incha allah rek bu balaa ma ñaari ay bis danañ leen jox plan yi ndax kër yi ni muy bindoo du loon kër yu rëy ñaari néeg ak salle doon mm-hmm. ak am na ci yoo xam ne dana am salle mm-hmm. ndax dafa wax ne juróom fukk kër yi mm-hmm. nañ ko def kër yu am salle bi yi ak juróom fukk ñu def ko euh, bu amul salle ak waañ ak wanu public noonu la liggéey bi di tëddee incha allah itam kuréel gi nga xam ne ñoo doon saytu loolu itam ñooy taxawu liggéey bi buñ demee ba àgg ci li ñuy def ñoo koy taxawu liggéey ànd ànd ko yéen leneen lay Sëriñ Tuubaa def ñoom ñoo koy taxaw bu àggee itam comme ñoom ñoo doon ñoo doon recensé ñoo doon recensé kër yi xam nañ fa mu gën a métti ak ñi ci gën a loolu boobaa itam ñoom lañ koy ñoom la sëñ bi di joxe ndigal ñu segg ko saytu ko seen bopp ba nga xam ne ñi ci gën a tumuraanke ñoo ñaa ciy jiitu kon daal loolu mooy ndigal bi am naa li nga xam ne rek yitte yitte boppam nag nee na amatul jën yitte jur moom mooy li jëm ci jumaa ji ak li ko wër ci la nekk suñu tool yi techniciens yëpp nag képp ku taali taalibe jox nañ leen digal ñu ànd ko kuréel gi nga xam ne sëñ bi taxaw na ko ñu nekk ci ba ni ko sëñ bëggee moom ndax sëñ Tuubaa moom la Cheikh Ibrahima Faty wax rek du santaane mukk lu am te du ma sant mukk lu ma du def waaye lépp lu mu santaane lu ma luy am la kon la ma waxoon ci jumaa ji rek ne bu ngeen ko defoo jeneen bindeef dana ñëw defal ko nañ xam ne kon lii sëñ bi santaane ci jumaa ji ku dégg lam ci wax dañ ci njëkkanti bu baax feex ba kenn du la ci jiit kenn du ci man kon ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di yóbbante nuyu ak cant ak ci bokk taal bi yëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu